لي من بالحاسمي يسبه afi rusuli ndax am na ci groupe bi yonent yi rasoolu mooy firi benn yonent waaye boo roccee waaw gi nag takkal lamara gi ci siin gi ñépp ñëwul rusulu waxul afi rasuli kon benn lay wax afi rusuli la wax trois cent treize lañu nag soo bëggee xam seen lim yonent yàlla yi nañu baat toll pour nga xam ne nebee foor ku la laaj ñaata yonent la yàlla yónni neel muhammadu Mouhamadou boo ko calculé trois cent treize la waaw trois cent treize la Mouhamadou ba mu ne ñaata yónent la yàlla yónni nga ne Mouhamed mu fab ko yëpp dëxañ ko ci tuur miim xaadam dellu miim miim dellu Mouhamadou ñetti miim la am miim googu ci digg bi nga gis lu ko saat li ko tiim di niroog sadda geneen miim la sadda mooy ñaari baat yu niroo nga bëgg sa kayit sakkan nga fa benn bi dugal ci biir sadda ko waaw ndax da ngay jàng mu xam door a wax madu bi nga ne xam am na fi miim ngoo maas néeg door a wax madu mu xam madu kon ñetti miim la mu xam xam jooju miim ngoo maas néeg la nga waxaat madu du noonu miim gi quarante la toujours ci isaabul jëmi gii miim quarante gii miim quarante del gi quatre adam dellu huit soo calculé muy trois cent treize moom la yàlla yónni kon ku la laaj yónnante yi ñaata la neel Muhammad wax na de miim quarante bii miim quarante bii miim quarante adam dellu huit del quatre boo calculé muy trois cent treize moom la yàlla yónni kon buñ la laajee ñaata la yàlla yónni ci yonent yi neel Mohammed mu jeex quarante trois fois ñaata la ah cent vingt plus huit plus quatre cent trente deux trois cent treize la nag li la koy def tax mu doon trois cent treize multiplié ko door a dem parce que guddi na miim gi doo bind miim simple da ngaa bind miimun miimun mooy firi miim miimun miimun nag miim la ak yaa ak mimara miimun miimun miimun miim googu ngay tudd turam piir dooni miim da nga naan miimun mooy firi miim miimun nag miim la ak yaa ak mimara miim quarante miim quarante yaa dix quatre-vingt-dix def ko trois fois trois fois miimun trois fois quatre-vingt-dix Souleymane Ndiaye moo ko def ci groupe Tayfoor wax na dëgg noppi ngeen mii mun trois fois mii mun ku ne quatre-vingt-dix la def ngeen loolu def na deel deel daalun ngay wax daalun deel ak liif ak lamara daalun lamara gi trente la deel gi quatre liif gi cinq muy trente-cinq def ci trente-cinq ah trois cent cinq ah al al adam dellu gi huit la def ci huit ah trois cent treize mu nga kooku moom la yàlla yónni buñ dee ñaata la yàlla yónni neel Mohamed rusli maa ngi laaj ndax am na ci yonente yi trois cent treize yi man miim ak munara la waaye miim gi boo commencé ci kaw ci arab dafa am doole ba nekk taxawaayu nit soo commencé ci suuf day néew doole ba nekk rek arab du mën a servir dara foog damir tabbi ci mbaa mu duggi lisib miim dootul dara araf rek la boo nee man mu taxaw taxawaay nit mën naa nekk fayil mën naa nekk mafoon xaat soppi masque gi rek nga jaar ca kaw muy lépp nga jaar ci suuf mu dee boo nee min arafu jar la foog nga tas ci demir muy hu min hu wala min la min a laayi wala min idrisa rek mun sa ngi lisim door a doon dara waaye boo ko bàyyi mun a ñukk nga mas ca kaw ne man rek mu nekk nag léegi ismu mawsul kon nag maa ngi laaj afi rusli ndax nekk na ci groupe bi yonente yi man génn jëm gis nga man ni mu amee doole xaat man génn jëma joo xam ne sëbbu dinañ ko niraleeg bil xaasami yi ca waaja nga xam ne kaka jur kaka jur kaka jur xaasim la tudd muy Mohamed Abdoulaye Saybata xaasim waaw taxawal tuuti de lay daadam France boobu laa bëgg mu leer waaw maa ngi laaj ndax trois cent treize yooyu bàyyiwuma kenn aadama ak anab atam yu bari ca laa ko boole nooyi nag soppug yàllam nga ca la Idrisa ngi ci biir Suleymaan ngi ci biir Sakariya ak Yahya ci la Ibrahima mi ñu lakkul woon mu tëye lakk di ko lakk mu të ca la ci la boole Yanqooba Yusuf ak taaram ba ca la yonent yàlla nooyi nag mu luuti nag mu ñëm nga ca la ñoom ñépp ñu ngi ci biir maa ngi laaj ndax am na ci kenn kenn koo xam ne subbihu dinañ ko niraleeg bil asli nabi gën na leen fu ne gën na leen a gën a gën ba ku ci nekk booy ñëw àddina yàlla dina la may ñaari ñaan loo ko ci sant mu defal la ko nabi am na ku mu waxtaan na ko trois cent treize fi ñëw yépp kenn na ku ci nekk si bit si biñ la joxoon sacrifié nga ko door a dem àllaaxira ginnaaw man sama ñaani ñaani sama ñaari ñaan yi ma yàlla dikk ni mu ko digg yonente yi laalu ma ci benn benn benn maa ngi ko dencul tout ñi bari bàkkar sama xeet bi te yéex a tuub ba dee boo lëggee ma jox leen ko ñu dem àjjana daw ngaa jàll de ah affaire bi man bil xaatami sabbaha
déedéet amu ci amu ci amu ci gisal am na ñaari tur yu yàlla tudde na bi malaaka yëpp respect nañu wéet na loolu ëpp na woowu tur tur mbindif waaye jibril mu gën a nangu tur jibril la ko àggee jëw ba moo ko ne malaaka yëpp jëwoon nañ la ci sa ñaari tuur yi yàlla yàlla tudde waaye billahi yaa ko yeyoo yàlla tudde na bi raxoofum abiras day man bil xaatami yusabbaha yanan bi
waaw kañ taxawal foofu yàlla tudde na bi raxoof tudde na ko raxiim ñu ne raxoof ak raxiim ëpp na mbindeef ndax daf na la xam ne saakum rasulun rasulun min anfusikum baax na waaye min anfasakum baax na faa googu mën nga koo maas ci suuf mën nga koo maas ca kaw waaye boo ko maasee ci kaw ci liy ëpp doole kon laqad saakum rasulun min anfusikum baax na mun a anfusakum baax na soo nee sikum moo di moo di yónnente la bu di nit ni yéen soo ne anfasakum nga ne yónnante la bi gën ci yéen waaw bi jóge ci ñi gën ci yéen af ala taf di lay doon que lay mu jim ci rek la min anfusikum ak min anfusakum dal ne nag na xasisun ali ma anitum alikum harisun bil momina ne raofun rahim ñu ne waa yooyu ñaar pour ëppal waaye keroog ba mu demee tayi oo ay nijaayam dee ak ñoom na leen maa ngi teraanga joo xam ne ku ma bëgg mbaa nga soppam mbaa nga gëm ma dem àjjana ñuux naa ko sama néeg bàyyi ñetti at ñu gàntu ma te ko am nit ndey am néeg bàyyi ma bëggoon ngeen làq ma ànd ak man boo lëggee ma sowe leen dañ ko ne fenkat nga génnal dëkk bi say bàyyi dañu nasax waaye bu doon ñun ba tey rey nañu la juddu démb ba bëgg fee indi lu kenn xamul mu ne kon ngeen suturaal ma parce que bu ñu déggee ne dàq ngeen ma sama sag sàggee ko ñu ne ko duñ la suturaal nga dinu tuumaal oo goos yaa xaj yaa sustal leen njool mag ñu di ko baraawoo di ko sànni xeer di ko baraawoo di ko sànni xeer di dàq yel yi ba yel yi naaj ne bi dafa mujjoon di fab mbubam di def ni ci yel bu sonni ni groupe sukk ñu ñëw yëkkati ko ba mu jóg ba muy daanu ci denn taati kàndarma deret jaan ko gand mu ngi naan seydun maa ngi xal ma deret ji bu laalee suuf àddina tukki dereti yonente suuf antana ko ba mu ne bëpp ci taati garab booga nag fa la yàlla ne jibril gaawal la laggal te waaja nee ko asamaan ak suufam ci commandement am tey na nit ñëpp alal ba jibril xaaree mu xixi mu wax ko ko ne bi dafa jooy ne ko mbaaru lii la ma yàlla naral ëllëg ak sama xeet bi man maa ngi defoon da leen di gindi pour ñu xam muy wax lu leen alak kii bu ma defee nii ci àddina bu àllaaxira bu ma jëm ak sama xeet bi jibril jox ko bi ko ne ko billaahi yaa gore ñaari tur yàlla yàlla waxoon nit ñi di ko respect yaa ko yeyoo keroog ba ma wallee woon nooyin waxul loolu nooyin ba ma ko walloo def ne laa tasar alal ardi minal kaydi mina dayyaara maa wallu maa wallu maa Allahu tabarak amula moroom dafa wax ne len bi yaaw yéeg rasuulu yéeg malaaka yi ñoom ñëpp bu ëllëgee ca bés pénc ci kerub ne bi rek la ñuy mën a jaar ba jàll fu ñu jaar fudul foofa du ñu dem loolu la wax waaye jibril daf ko ne yaa gore anta roofun kama sammaka rabbuka ni la yàlla tuddee yaa ko yeyoo lii ba mu dalee nooyin ma wallu ko waxul li nga wax daf ma ne na ñëpp a dee maa wallu waa ji ñu wax Muusa ca timis daf ma ne na ñëpp a dee kër looten maa ko xëy sama bagam ca muñ mii laa roof ci suuf ya juróom-ñaar te ba moom ba ganaar ya ak kuur ya waa am asamaan di ko dégg ma jàllal bi leen la féete woon koo féetu suuf ma taw leen der ñooñu waxuñu woon loolu maa wallu itam yonent yàlla su ay waxul woon loolu yow dong laa wallu nga wax wax bi kon kañ bu borom ibnu mahayib bi ne afi rusuli ndax am na kenn ci bur bi yonent yi man kenn koo xam ne rek am na kenn ku am fit ba di ko niraleeg ne bi ñu ne déedéet France bi jeex ñu ne waaw luy sa pro mu ne dafa am lu mu làmboolu kenn làmboolu ko ñu ne loolaay lan waxal deuxième fois
حرام علي النار قلب أحبها بمطلع الانجن kooku araamun alayhi naaru xalbun yuhibbuhu aminte gay joxe woon na fi daaw ay yére yu wëloore mu ngi ci àjjana di ko xaar moom mu ñu fi saraxe ñépp sànq e bu waxtaanee ak nit it te nëbbul boppam mu xam ne joxoon na ko ku ko dara jox moo fi yónnee sér beeg ñaari téeméer yi yàlla na ko yomb yomb jullit yépp jaay rasulilaay jóg
حرام waaw حرام fu ma jàng ci àddina bi علي نار بمطلع الانجن خير العالمين yàlla na ko yomb ba faw حرام علي نار قلب أحبها ينتي على محمد waaw kookooy kan jëmma joo xam ne araamun araam na ci lu wér lu araam naaru safara araam na ci kan xal buum jëmmi xol boo xam ne jëmma jëlañ wax waxuñu xol bi yu ibbahool soppa na ko ku ko soppa rek sa yaram araam safara soppa rek waxuñu liggéeyal ko sopp kookaay kan kan la fi kan la fi koo xam ne ku ko sopp doo la ka kan la moom doon na la moom kay xanaa ku ko gëm la ñuy wax mbaa ku ko dimbale mbaa ku ko defal waaye soppa rek xaat sa yaram araam safara loolu moom rek la wax naa la ne am na kenn ci saaba yi rawaa yonente bi daf ko nuyu si yoor yoor واو ñoom nag dañu bëggoon nabi ba buñ ko gisee ca kaw lañ koy xool dañ ko rusoon lool it dañuy sëgg ku ciy wax ci la tamit ndànk ngay wax sallallahu alayhi wa sallam ne tël ci kër gi mu bég lool ne góor gi de gane si na ma dogale ko xool ne ko taazara fi asariri jab atika ya rasulallahi jox dafa mel ni sa ñëggi-ñëggi kër asarir mooy yii yii ras nii dafa mel ni dama ci dafay signalé xiif dafa mel ni da nga xiif ne bi muñ ne ko ñetti fan a ngi tën cin tàkkul sama kër mu entré ko ci néeg bi dab mbote mi mu yewoon ne ko fàppareen ak déglu déglu leen aywa suqaa ba mu ko rendee samp paak bi daw dugg ci néeg bi war a jëli lu mu ko boolee ca marché ñaari parental la yor ku mag ak ku ndawe mag ji dana rakk ji ma won la ni sama papa def xaram dawal paaka bi ci put mi xale ba dee mu tiit di ut fu mu nëbbu tàbbi ci fuur ba fekk fay yaa ji jóge marché fekk góor gaa ngee waxtaan ak Moustapha toog ci wetam mu okk ko mu génn mu ne ko musuba am naka ngóor si dee na xawma lu ko rey nag xawma it ku ko rey waaye bul jooy bul tàggi xiifi nebi bee ma gën a ñor ci sama doom ju dee fakk fitam nëbbi rongoñam laxas doomam ci xotti saaku làq ci ginnaaw ni dogat yàpp weeg sagoom raxas ko ba mu set mu dem di gindi taal ba pour taalaat doom ju mag ji génn def kër yi ci biir fuur ba mu oowaat jëkkër ji ne ko kenn ki kat yenn ci fuur bi xamal lu ko ci dugal waaye moom mi ak rakkam ji ak yow ak ku ma am seen deendoo ci lakk xiifu na bee ma ko gën a ñor bul sàgge bul def dara làkk xale ya togg ci sago ba ñorle taaj yekk upp ba mu fet mu taaj Moustapha sallallahu alayhi wa sallam raxasoog loxoom yu tedd yooyu wiccax ko ne ko ay ci sëriñ bi jëkkër ja toog ñuy lekk mu ne ko oowal xale yi góor gu baax day lekkaale njabootam mu génn kanaayal ñëw ne ko dañu fobi ne bi ne ko ooleen ku baax day lekkaale njabootam mu dem taxawaalu ñëw ne ko rasool dinañ leen may nañu añ xiif nga ne bi na ñokket rombanteeg moom ne jaagam jaagam jëm ca ginnaaw nit bu muy tournaal la sunu borom ne jibril bu mu la fa jëkk mukk ñu delloo xale yi ruuy mu dajeeg ñoom uuf kii téye kii ci loxoom ñëw toogal ñoom
yàlla Muhammad afi rusli
alamina jaageen jëf jaageen jëf abu mandila samay sabaha alamun alayna qalbun ahabbaha yonent yàlla Muhammad waaw waaw moom yonent bi rasulun karimun ma staqad rabbaha جن منكت وبالإحوال قامت ربه ينتي على محمد waaw jaageen jëf لمن وافق جاكن من جف، حكم جاكن جف.
صلاة جاكن جف.
ومنها
yéen a ngay xeelu ngeen jimbi def xeelu xeelu xeelu أبي رسيمة العاج المكيال الجن du gën gu ndaw kat da ci أبي رسيمة بالعاصمين الصبها
gisal nabi wax na ak borom bi na ko bés pénc dafa ruslu te raklu sama sama gaa yi yépp laa bëgg bu àllaaxira rikk nga jéggal ma bul délégué benn malaaka bu leen visité lee ñu xamal leeni ñaaw téef ba ma man kenn ma seetal seen affaire sun borom na ko Moustapha soppa naa la lool xeejal naa la it da ngay ñaan pour sa xeet wi seen bàkkaar yow rek nga xam ko kenn bañ koo xam ne bi na ko waaw ci teggi nag sa yërmande dama bañ kenn xamal leen dara ma bëgg bu àllaaxiraa nga ba ma man ma seet seen ñaaw tiif lu ci ñaaw ma baalu la lu ci rafet ma sant leen yàlla ne ko dëgg-dëgg xejjal naa la waaye sa martaba àggul foofu nag sa gaa yooyu kenn du xam seen bàkkaar yow sax doo ko xam maa ngi ñoom rekk la lu ñaaw ma rafetal lu rafet ma yokk ñu xëy dem àjjana
يا
da nga naan affaire russie أبي بمن بها سمي صباج المكيال الجن déedéet déedéet déedéet amul kenn ci yonente yu ku mën a am loolu ci xeetam أبي بمن بها سمي صباج المكيال الجن lu jiitu Moustapha laata ñëw أبي بمن بها سمي صباج المكيال الجن ku def bàkkaar dañ koy bind ci sa jëf أبي بمن بها سمي صباج المكيال الجن foo jëm ñu xam ne def nga bàkkaar sàngam أبي بمن بها سمي صباج soo ko defee bañ ne doo génn ñu bind ko sa buntu kër أبي man bi laa sami saboo képp ku sobe mës a taq ci sa mbubb abiru bi man bi laa sami saboo da nga koy dog wacc rek abiru bi man bi laa sami saboo bu mësee taq ci saw yaram abiru bi man bi laa sami saboo danga koy garaate ba deret génn abiru bi man bi laa sami saboo boo defee bàkkaar abiru bi man bi laa sami saboo da ngay rey sa bopp yàlla doon la baal abiru bi man bi laa sami saboo boo tukkee loo fa yàgg-yàgg abiru bi man bi laa sami saboo duñ la nangul génn julli te ñëw la fi nga juddoo abiru bi man bi laa sami saboo bi ne bi ñëwee abiru bi man bi laa sami saboo day def bàkkaar kenn du ko bind abiru bi man bi laa sami saboo nga baalu ko ci astafurlaa ñu baal la abiru bi man bi laa sami saboo bu ba taq nga fóot mu gën a set nga laab abiru bi man bi laa sami saboo ba yaram taq nga fóot mu gën a set nga laab abiru bi man bi laa sami saboo foo taxaw julli yàlla nangu ko abiru bi man bi laa sami saboo kaw suuf yépp yépp jàkkale bi ne bi juddoo abiru bi man bi laa sami saboo kii kañ moo daani xutoof inde kulli jaani yaayam abiru bi man bi laa sami saboo li tax nag ma ne kenn melul ni moom mooy waxal France bi ci topp abiru bi man bi laa araamun seetal loolu rek
حرام حرام علينا أخذنا أبو جنك يا الجن waaw kañ araamun ginnaaw meloom woowu képp ku ko sopp sa yaram araam na safara حرام jàllal nag ci ñetteeli France bi علينا قد هبان وكموكا رسول كريم ما رسول كريم waxal rasoolu rek ما رسول waaw kañ benn Ah.
garab demal ما رسول
dama ne nga dem واو كريم ñaar demal ما ساقت
ñett ربها ما ساخ ما أساقت ربه ما ساقت ربها kooku ñett la ñoo bokk France أريد الإحوال moo taxit uridu li ahwaali alqiyaamati أوبا taxawal nag waa jooju ma wax huwa rasulun huwa karimun huwa ma asaa rabbuhu qattu la ilaha illallah آه nabi ne na musuma fàttaliku fenn fenn fenn fu ma defee dara lu naqari yàlla dama leen waxoon bu yàgg ne tubéy ji weex tàll واو turki bu weex tàll mbubb mu weex tàll dàll yi weex tàll kawas yu weex tàll ak gang sax bu la neexee kaala ak mbaxana borom xuus ak moom 63 kilomètres ci godorom génn weex tàll na bi rek ko mën yére yu weexe noonu nga dox ak moom ci biir godorom di xuus godorom ba am 63 kilomètres ne tëll génn weexa tàll na nga weexe woon ci un kilomètre ba Moustapha rek a mën loolu ah du ngeen ma laaj complète bi ak kilomètre complète bi mooy ni mu ñëwee ci àddina gune buy dóoru juddu bu ne complète bu weex la indi amula benn bàkkaar waaye boo fi yàggee fokk nga tilimal ko am na sax ñu yemul ci tilimal ñu xotti sufu ne kuppati daax ne bi complète bi mu ñëwoon sufu newul 63 ans kilomètres yi mooy 63 ans yi mu fi am am na fi 63 ans juróom benn fukki at ak ñett la ne bi dund juróom benn fukki at yooyu ak ñett bajaan maa ngi laa yëgal ne ne bi mosu cee xool lu naqar yàlla du ci wéet du ci wéttali mosu cee wax lu naqar yàlla du wéet du wéttaliku loxoom bi mosu cee tàll lu naqar yàlla du wéet du wéttaliku tànkam bi mosu cee dox lu naqar yàlla du wéet du wéttaliku non sa xel ma sax mosu la xalaat lu naqar yàlla mu ne rasulun ab yonent a ngi karimun bu ñu ñoŋal saa yi rek baati ñu ne lu tax mu ne ma asaa mosula mooy xattu mukk mukk rabbahu borom nee na benn takkusaan laa mos di sàmm dégg tabalu juy jib di def dan dan ma laaj lan la ñu ne céet la ma ne bu ma jofalee jàmm bu ngoonee dinaa ca dem benn bi واو ma jofal ratt yeew jóg jëm ci ñaari koñ laa làkkar ci ko nga mentu daf ma ma tërëf tëdd jóguma ba jant bee tàngal sama lex mi katabalee tas na bu yàgg kon li ñuy wax naan nabiyun sabiyun sabiyun walaw kaana dalu ko dañ ne gune gune dong lay doon lu tax muy doon gune day def jëfi gune mel meli gune doonte dencal nañ ko sa quarante ans ak nubuwa it foog mu def yëfi gune njol màkka jaaru ci maahaha rabbahu xat xat xattu ci arab mooy lu loo paase loo paase abadan mooy loo dëkk mën soo mësula ñëw ndakaaru da nga naan maasaab tu Dakar xattu soo fa naru la ñëw nag ba mukk nga ne wa maasaab tu Dakar abadan xattu mooy loo jox ginnaaw abadan mooy loo dëkk mën xattu mooy démb ak daaw ak daaw jéeg abadan mooy ëllëg ak ginnaaw ëllëg noonu naa léegi Idriss ana démb mu ne ma jeex na ma ne ana mois de septembre mu ne jeex na ma ne ana 63 mu ne passé na ma ne loolu passé na subaa ngi nii ñu ñu ak la ca gannaaw suba lëndëm kër kenn xamul lu la ca nekk kenn ku ci nekk bu ëllëgee di nga tawu mandat bu la ëllëg indil benn nga xool ko jooy mbaa nga xool ko reete xamagoo lan la yàlla mu mën a sàkkat moomu ba kenn du yuqantalu seen mu mën a fattal ba kenn du bërqal bët seen ku muy yot te xamagoo foo jëm ak moom say nelaw warul la neex wala sam xel warul la daw lii nag xel mu rafet la daje bii ngeen daje te ne bi tax daje yépp melul nii de nun dey bu àllaaxira xawma yan lii lañ daan gisante séenante fa ca kanami yàlla dina bu waay bii du ci bokk am na nag yoo xam ne bu boobaa parce que ne naa la wax naa la toujours ba siru ne la àddina film la foo passé dañ koy taxañ foo passé dañ koy taxañ soo demee ca kanami yàlla nag day tàqat ci rek foo mës a toog foo mës a dem te booba it malaaka yaa ngi taxaw yor pax tey ma ne léeg-léeg ñu tàqat ci nag fekk la foo xam ne da ngay taf sa loxo ci sa bët yàkkamti mu jàll lool ak boo xam ne da ngay bëgg mu diib xam nga ne ku la doon def fii nga ne dañ sa doon tagganni bi neex naa nettali yàlla de kon melo yu mel place yu mel nii yàlla na yàlla yolamalal suñuy tànk ñu bañ koo séexlu te mën faa dem te antan faa yàgg ñu koy defit yal na yàlla saxal seen wërsëg te doollee fàtte seeni xol bi jaay rasulillahi serey daaw ya koppar ya woon daaw yépp yépp yépp yépp ku ci duggul fu mel ni fii dugg nga fu perte fu mel ni fii dundale njaboot mbaa dimbalee ku néew doole mbaa sole yére yoo jullee ji mbaa yoonu mag mbaa mawludul Moustapha somi daaw yépp jeex na munu laa muus a muus a muus nag ba sa wërsëg wi nga jëriñoo ko yow kenn munu la ko soxor mukk foog am ku ci bokk bu la yàlla xoolee nag ba xam ne bëggu la ci parti mu indil la beneen boo ko dugal foog ngay saraxe ci mawlud yi rek bañ nga dafa bëgg tiita ko mbaa nga nekk amateur bu rëy ci làmb toujours nga maye fa sa dix mille francs mbaa cinq mille francs mbaa nga doon boo ku bëgg a course toujours ñu dàqale cinq mille mbaa cinq mbaa nga doon ku bëgg a football toujours nga jël billet cinq cent franc ñu tafu la fa cinq mille yooyu yépp nag booleet ñu ngi koy ñu ngi koy noté daray doomu aadama nag neenul daray nit neenul loo def ba mu teer ñu ngi ko ñu ngi ko denc di la ko xaari ëllëg pour laajaat la ko kon ñeneen yii yii lëf la
salaamaaleykum mbooloo mi baale maax baal nañ la jóg waaw may itam damaa laaj tuuti mbooloo mi waaw am na lu mu laaj ci ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la nee na am ana ku muy moom ci 313 yi bay waaye may sama waa ji ci jamono bi ñu toll ci fii ñu toll ana ku muy moom ci lii muy def waaye Idrissa daan na bu kenn waaye dégg nga la Idrissa daan na su ngoon affaire u suñu waaw xibaar baa ngoog maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di siyaare ñëpp warkal njaag di siyaare ñëpp di wax yàlla mi tëlewul dara mi am droit ci ku